gëm tey Sénégal mi ngi importé mille soixante dix milliards en denrées alimentaires un million de tonnes de riz cent cinquante mille tonnes de maïs cent millions de de de de de de, de produits laitiers nañ xool secteur mu doon jëwriñ bu bees buñ tabb ngir mu daal di jiite ministère de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage maanaam lépp lu jëm ci wàllu mbey dund mu mel ni rek fi ñu ko tabb nii. fi mu xam la. man mi investir naa deux cent cinquante millions Kaolack y a de cela treize ans. bi ma defee loolu Kaolack dama perte xamul taxoon ma perte parce que bi ma defee outil de production bi ba pare même pour dem jënd gerte xamu fu may jëndee gerte peut-être ñoom suñ ma accompagné woon ba nga xam ne nii dañ ma campagne gerte bi kat doo nekk ba no no euh, nawet bi teru nga door a jënd gerte. daanaka néew na lool ñi ko xam. Mabouba Diagne jot a liggéey ci atum 2020 ci banque d'investissement et de développement bu CEDEAO nekkoon vice-président jiite woon lépp lu jëm ci wàllum finance institutionnelle doon boroom xam-xam amoon ay ndombo tànk ci réewum Afrique yu bari gannaaw bu mu amee maîtrise ca université Gaston Berger bu Saint-Louis ci atum 1995 ca noonee la daal di amee bourse Nations Unies bi tax mu dem wéyal njàngam ca bitim réew ba nu mu tàmbalee carrière bu jëm ci wàllum banque moom mi nag ñu bari rafet njott ci tabb biñ ko tabb ci bile secteur ndax xam-xam bi mu daal di àndal ak bëgg bi mu bëgg lépp lu jëm ci wàllum mbay moom mi moo ngi cosaanoo jur Jurbel doon ku yàgg yëngul ci lépp lu jëmal kanam ko xam moo taxoon ba mu daldi woon formé ay ndaw yu bari ci réew réewum Afrique tey mu mel ni rek baykat yi ñoo ngi koy xaar bu baax a baax ngir rekk mu daal di indi ay saafara si seeni jafe-jafe. les priorités des sénégalais mooy ñu lekk ñu naan ñu faju jàng mi ñu xoolaat ko.